billahi min alcheytaan irajim bismillahi arrahman irrahim gisoon nañu ci dërs bi weesu suuratu nuur lu ko tax a tudd suuratu nuur saaru leer gisoon nañ tam aslëf ci mawduaat wala mbir yi nga xam ne moom la saar wi lan ëmb nu tënk ko xanaa rek ci biñ koy tënk am na ci qissa bu gudd boo xam ne tudd nu ko mu laa bëgg ñu tudd ko bal noo jàll moo di ne saaru yi bokk na ci yi mu indi te teel koo indi qissatul ifk qissatul ifk mooy fen wu rëy woowu tor wu rëy woowu ñu toraloon sunu yaay situna Aïcha radiallahu anha saaru yi indi na ko xaabaabal ko indi gudd bu jot sëkk loolu lépp nag xalsat nañ koo gis ci biir saaru yi kon nag xanaa la ci des rek mooy ñu daal di sóobu ci saaru yi ñu daal di jox ñu daal di jox Ahmad mu taril ñu aaya ju njëkk ji ñu door koo tafsir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أو ساروا مك woo xam ne nun yàlla wàcce nanu ko farataal ay attem ci yéen wàcce ci ay aaya ay firnde ay atte yu bir yu leer ndax ngeen mën a fàttaliku noonu la borom bi tabaraka wa taala ubbee saaru muy kubbikaay lu ànd ak dogu kubbikaay lu waxin wa màgg suuratun anzalnaha aw saar woo xam ne nun yàlla noo ko wàcce nun yàlla dafa waxee ci martabam bu kawe ba martaba uluhiya ak rububiya la jëfandikoo nun yàlla noo wàcce saar wi kon saar wi des ko wàcce mu jóge ca màggug mu jóge ca kawek rububiya jëm fan ah jëm ci jaam ñi luy wàcc daa jóge fu kawe jëm fu suufe du dëgg day kon saar wi dafa wàcc jóge fu kawe te mooy fan ci yàlla ci rubub martab rububiyya ci martab kan uluhiyya jëm fan ci fu suufe ci ñan ci jaam ñi jóge ci buur bi sàkke jëm ci lan ah jaam ñi ñu sàkk jóge ci buur bi moome jëm ci ñi ñu moom jóge ci ki melloo mboolem melokaan ni mat jëm ci ñi nga xam ne dañoo loru dañoo soxla ku leen mottali dañoo gëlëm dañoo jaaxle suñ bañoo te ci ne wa faradnaha wàcc nan saaru yi te li ci nekk ci ay atte lépp farataal naa ko ci yéen waral naa ci yéen ngeen jëfe ko nu daal di gis ne atte saaru yi lépp yàlla da ko waral ci jaam ñi jëfe gi daa war lan ci jaam ñi li nekk ci saaru ci ay atte lépp moo xam at yi jëm ci wàllu xuduud ak ay uqubaat wala yi jëm ci wàllu ay aadaaba ki axlaaq maanaam li ñëw ci suuratu nuur ci ay at lépp moo xam ay yar yu ñu war a teg yenn xeeti tooñkat wala ay jëfin doxin nuyoowin soluwin lekkin wala ay jikko mboolem li nekk ci saar wi lépp ci ay ndigal jëfe gi daa war te amu ci lu gën a war lan moroom ma du caa gënub dee sa war a jëfe li nu neex bàyyi li ci def du caa gën dañoo war a jëfe li nu yaakaar ne moo gën a woyof bàyyi lu ci des du caa gën dañoo war cee sàkk lu gis ak lan lu woyof lépp a yem lépp a war loolu la ñuy daal di jële ci lan wa faradnaaha kon suñu borom yàlla bi mu ne anzalnaaha ba noppi teg ci wa faradnaaha anzalnaaha wàcce nañ ko loolu mënoon naa doy waaye bi ñu ci tegee wa faradnaaha daa mel ne day xam le ne saar yi bi ma koy wàccee wàcce ma ko woon ngir lan njàngum kese waaye dama ko wàccee ngir dina ko lan ngir ngeen di ko jëfe te tëral ay yoon tëral ay loi tëral ay lan ak di ko waral ci nit ñi ñu war ko jëfe sama borom yàlla da cee am ak ak xama ak yàlla tëral ay loi ak lan ak jooji yàlla da koo am tayit moom dong nga ko am yàpp leen yooyu ñaar dañoo dem te lan bokkuñ tëral ay loi tëral ay yoon yu ñu war lan topp kooku yàlla da cee am ak da koo sañ da cee am lan ak mais leen benn ñaareel bi moo ji keneen amul àq jooju ku dul yàlla keneen amul sañ-sañ wala droit ci tëral ay loi ku dul yàlla ñaar yooyu nañ ko lan xàmme soo dee laaj lu tax lu tax yooyu ñaar lu tax yàlla am àq ci tëral ay loi lu tax yàlla sañ lu tax yàlla saña tëral ay loi te itam lu tax yàlla dong moo saña lan tëral ay loi ku dul yàlla amoo droit ci tëral loi te it mënulaa tëral loi mënoo ko ku dul yàlla lan mënoo ko amaat amoo capacité bi ma tëral lan xam amoo xam-xam ba amoo man-man ba amoo sañ-sañ ba sa yoon nekku dugg nga ci loo xam ne lan sa du sa du sa wàll sa yoon newu ci booy laaj lu tax saar wi tontu na lu tax saar wi ci boppam ay aayaa ngi ci yoo xam ne day wax lu tax tontu la nag daa tasaaroo ci biir laaye saar wi demal ca aaya fukkeel ba ak juróom-ñeent fi saar wi ma nga jeexe wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moom dafa am xam-xam te yéen lan amu leen xam-xam demal ca jeexitu aaya ñeent fukkeel wa man lam yajalillahu lahu nuuran fama lahu min nuur ku yàlla defalul ak leer doo mën a fexe ba amuk leer demal ca jeexitu aaya ñeent fukk ak ñaar walillahi mulku samawati wal ard wa ila allahi almasir nguuruk asamaan ak suuf yàllaa ko moom te ci yàlla la ñëpp di mujj demal ci aaya ji mujj ci saar wi ala inna lillahi ma fi lsamawati wal ard qad yaclamu ma antum alayhi wa yawma turjacuuna ilayhi wala wa yawma yurjacuuna ilayhi fa yunabbi'uhum bima camilu wallahu bi kulli cheyin alim ca dëgg yàlla moo moom mboolem li nekk ci asamaan yi ak suuf si ci lu wér yàlla xam na li ngeen nekkee te bis buñ leen delloo ci kanamu yàlla bis buñ delloo jaam yi ñëpp ci kanamu yàlla yàlla dina leen xibaar mboolem li ñu doon jëf te yàlla xam na lépp léegi de tontu li leer na ku doon laaj lu tax yàlla am sañ-sañ ak droit ak ak ci tëral lan ay loi lu tax tam keneen amul lan sañ-sañ keneen amul droit ci tëral loi te ku ku dul yàlla boo tëralee loi dugg nga ci lu sa yoon néewul dugg nga ci loolan mënul te koo ci topp ngeen bokk sànku lu tax ay yooyu tontu nañu tontu lu njëkk li mooy lan wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla dafa xam te yéen lan xamu leen yàlla wax loolu kon yàlla dafa xam yàlla dafa lan te xam-xam fa yàlla melaw zaat la ci moom bi maanaa yàlla xam-xam bi ci moom sakkuwu ko wutu ko dafa dëkk ci moom mosu faa jóg aalim bi gën a rëy ci adduna bi ndegam adduna bi am na aalim ndegam sañ na wax ne adduna bi am na nit ku am xam-xam kookee ñu ne am na xam-xam amut xam-xam ñàkk nga xam-xam boo ko bëggee xam seetal ba muy judd lu mu xam ah dara ba muy judd lu mu xam kon la ne ci moom ñu dëkk tudde xam-xam loola lu mu sàkku la lu mu lan sàkku la da koo sàkku te mi ngi ko sàkkoo ci ay sàkkukaay ay wutukaayu xam-xam yu manqué jële ko it ci barab bu lan barab boo xam ne xam-xam dafaa lan manqué yàlla nag xam-xam ba ca moom doonul lu mu jàng doonul lu mu wut sifatu daat la ci moom faggu wu ko benn ñaareel ba mooy xam-xam bu yàlla xam-xam bu wér cëng la xam-xam bu lan bu wér cëng la li bir te wóor mooy kayit gi daa weex te giinu tim daa lan daa weex am weexul mbind mu ñuul mii daa lan mbind miin tim ndax daa ñuulal lan ñuulal boo demee am na ci ay xeeti nit ak ay xeeti xam-xam yoo xam ne boo ko jàngee dañ naa kayit gi bul dogu ci weex na weex xamoo ci dara xam nañ ko nii ne daa weex istilaaxan rek istilaaxan xam ni lan istilaaxan rek waaye ndox kayit gee weex am suñuy bët a weex loolu sax mën ngaa dem ba jàng ay xeeti xam-xam yoo xam dañ la ci lan sikki sàkk lool xanaa kon loolu wóorulu yàlla nag moom ab xam-xam day xam-xam bu wóor boo xam ne dara ci njort mbaa dara ci sikki sàkk du ci lan du ci rax ñaar ñetteel bi mooy xam-xaw bi yàlla day mat sëkk yàlla la may xam da koy xam-xam gu mat sëkk nun nag la ñuy xam dañ koy xam-xam gu lan xam gu manqué lépp lu aju ci lépp la yàlla di xam rek la yàlla di xam lépp lu ci aju rek xam yàlla xam na ko te xamee moom ko xam tam lan xamu ko genn wàllu xam waaye da koo xam lan xam gu mat sëkk la ci topp moo di xam-xaw bi yàlla dafa ëmb lépp yàlla xamul lii réere lee lépp la xam benn shaacir nee na wa qul liman yaddaci cilman wa macrifatan calimta shay'an wa faatat canka ashyaau nee na boo gisee ku jàng jàng jàng jàng ba jeexal mboolem téere yi ci kaw suuf tax muy woote leen xam-xam nee ko dangaa xam lenn yu bari réer la dangaa xam lan yu bari lan mu ngo ah koo kee di woote xam-xam la mu réere biig sax xamu ko xamul lu mu réere biig kooku war naa woote xam-xamam xam-xamam saa borom yàlla nag moom daa daj lépp la xam xam ne mbir yu sew yi ak mbir yu mag yi mbir yu sew yi ak mbir yu lan mag yi kenn ku ne ci nun ñi ba mu xëyeeg léegi ñaata yoon la noy yi loolu sewuta yàlla xam na ko xam ñaata noo ko dese ci kaw suuf kenn ku ne ci Sénégal kenn ku ne ci Afrique kenn ku ne ci kaw suuf la ngay def ba kenn kenn yi jeex la ngay def yàlla am koy gis mi ngi ci ne jàkk mi ngi koy dégg mi ngi koy xam lu waaye ne bu fi barab yàlla lan xam na ko kon yàlla xam ne mbir yu sew yi xam na it mbir yu mag yi te itam seen cosaan moo ko xam xam seen xaqiqa xam seen lan xaqiqa ak seeni melokaan ak melokaan yooyee la mu laaj ci ay at nit yàlla ko xam xam ay melokaanam yàlla xam cosaanal nit yàlla xam xaqiqa dëgg dëgg dëgg nit yàlla xam la nit nekke ci jub mbaate dëng akuk mën a jub wala tëlee jub wala lan nangoo jub wala gàntoo jub loolu lépp yàlla xam na ko ba noppi nag xam loola yan xeeti atte la laaj yàlla xam lii xam-xam bi noonu la daje mbir yu ndaw yi ak lan ah yu saw yi ak lan ak yu mag yi xam-xam bi yàlla daj na mbir yu saw yi ak yu mag yi xam-xam bi yàlla mat na sëkk manqué wul dara xam-xam bi yàlla lamb na lépp bàyyiwul dara xam-xam bi yàlla bóor kenn la dara ci sikki sàkkalan dugg ca xam-xam bi yàlla doonut lu mu jàng mbaa lu muy laajte waaye day lu mu lan lu mu melloo sifatu zaat ba noppi it xam-xamu yàlla dafa lambe jamono ñaata jamono am ji weesu ji teew ak lan ñett yépp la yàlla xam ñett yépp lan la yàlla xam yàlla xam ne ku ne sa démb kenn ku ne ci bindee fi sa démb yàlla xam na ko foo jaar loo mos a def yàlla lan sa tayit yàlla ngi lay gis mi ngi lay lan xam sa ëllëg it yàlla xam na na muy mel loolu lépp nag ñetti jamono yooyu yépp nag ci kanamu yàlla génn jamono la yàlla jamono mooy al aanu daaim al aanu daaim mooy lan léegi ju sax dàkk yàlla amul lu weesu amul luy lan jublu si yàlla lépp a teew fi kanamam kon yàlla xam na li weesu ak la ca xew ak la ca am ak na mu xewe xam li teew ak li ciy xew ak na muy xewe ak la ko xewal xam lay jublu si ak lan ah la cay xew ak na muy xewe na muy def ba du ko xam te moo ko sàkk alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latif alxabir yàlla nee na ndax ku sàkk dara doo ko xam yàlla moo sàkk nit xam na nit moo sàkk alam bi xam na alam bi kon yàlla daa xam moo tax mu lan ah yàlla daa xam moo tax mu war a tërali at wa antum la taalamuuna nit ñi nag dañoo xamut nit dafa limité xam ngeen limité mooy tàmbalee fuu yem fuu xam ngeen fuu mooy fu jege nit koo gis ñu koy tuddee borom xam-xam bu mag mbaa savant bu mag man ngaa wax taarix am at mu yàggul moo xam ne lan ca la judd amul mukk ñetti junniy at amul mukk junniy at amul mukk téeméeri at bëkk démb la judd mahduud te itam am na taarix boo xam ne wóor na ne xamoo kañ muy dee da ndax da ngaa réer moo tax yàlla nga xam moom xam na lan kañ lay dee yow nag xamoo ko te moom it xamul kañ lay dee moom muy dund moom it savant bi waaye wat mën na laa wóor ne balaa taarix sàngam mu lan mu dee ci la tàmbalee fuu la tàmbalee te fuu lay lan yem juddu dund ci benn jamono bu limité savant bi gën a rëy xam-xam ci àdduna ndem ko am xam-xam am na ci àdduna ku dul yàlla kookee mi ngi judd bu yàggut te dana dee balaa yàgg dafa dund ci benn jamono bu tàmbalee fuu yem fuu dund itam ci benn barab bu tàmbalee fuu yem fu benn barab ndax nit dafa ngeen ne nit mën naa boole dund ci ci xarnu bi nu nekk siècle bi nu nekk boole koog dund ca ñaari xarnu yu ñu jiitu ak yi ci topp nit ku ne ci benn xarnu ngay dund ci doo ko lan doo ko jeexal maa boo ko jeexalee ba boo rëyee muur ba dund téeméeri at tam téeméeri at yaa nga dund doo ko mën a xam ndax la la fekk ci ndaw xamoo ko la la fekk nga naagat lam xamoo ko kon nit ki dafa dund ci jamono bu lan bu gàtt dëkk tam ci barab bu tuuti ndax nit mën naa boole nekk Sénégal Sénégal bi mu réew ci biir Afrique mu boole ko ak nekk Mauritanie nit ci benn benn jamono ci benn barab la mën a lan nekk du dëgg waaw ki nga xam ne kii mënta boole nekk Sénégal nekk Mauritanie ndax mën naa boole nekk Afrique ak nekk Asie ak nekk Europe déedéet nit mënta nekk ci ñaari xaar ci benn jamono mënta nekk ci ñaari jamono ñaari barab ci benn lan nit ci benn jamono ci benn barab la mën a ne dof boobu ñuy wax Karl Marx te mu yëngal adduna bi indi fi waxe dof yu kenn xamul wax yu nekkee dëkk yu kenn xamul boo seetee ak dundam boo demee mu set ak tànkam ci Sénégal xamut luy baaxal waa Sénégal xamut ñoom dara ba dara booloo jeex mu set ak tànkam Arabie Saoudite xamut lu fa xew xamut fa dara ba dara booloo jeex réew ya mu set ak ay tànkam boo ko seetee muy lan muy dëgg bu néew bu xat la fa ci xam-xam moom la xam la fa newul nag kooku ku réer dong la mooy maanaam nit wulida wa aasha fi zamanin mahdud wa makanin mahdud nit ab xam-xamam da koy sàkku ci ay xamukaay xamukaay yooyu dañoo limité lahu madariku mahduda xamukaay yi mooy lan mooy yi ngay amee xam-xam bët bi ngay gise nopp bi ngay déggee ah ak lamiñ yu ngay waxe ak yooyu yooyu dañoo limité dañuy def fal basaru mahdud sa bët bi dafa lan ah am fu mu yem sa bët bi ngay gisee daa am lan daa am lu mu mën a gis ak lu mu mënta gis du dëgg dooley bët bëgg mu yokku moo tax ñu wut ñaari appareil télescope ak microscope ñaari appareil télescope ak microscope benn bu ci ne benn bi day fekk lu sori mu jegeelal la ko lu mu ciy jegeel sa gis dafa mënta àgg benn bi day fekk lu tuuti mu rëyalal la ko lu mu ciy rëyal sa bët da ko mënta gis kon bët limité gu mu limité ak néew gu mu néew lu mu mën a gis moo tax ñu wut télé télescope ak microscope te yooyu ñaari appareil dañoo lan ah limité ñoom dañoo am fu ñu yem du leen dégg gi dafa limité sa nopp fii dina dégg waaye dégg gi dafa lan dafa am fu mu yem loolu tax ngay wut téléphone da ngaa def ne sa borom yàlla moom bu bëggee wax ak waa Ndakaar di leen téléphone ah diw ko yow nag sa bëggee wax ak waa Ndakaar nekk fi nooy def da ngay wut téléphone wala nga wut rajo ah boo bëggee wax ak waa penc ma nooy def soo bëggee lii ngay wax waa penc bi di ko dégg nooy def da ngay wut haut-parleur lu dëgg bi maanaam sa baat bi daa am fu mu joti wut kon baat bi daa am fu mu lan yem nga wut ay appareil yi la koy yàlla leel appareil bu mooy téléphone ak rajo ak haut-parleur te yooyu it dañoo am lan fu ñu yem limite ñëwal ci xel xel tam dafa am fu mu yem xel mi am xam-xam ak di ko ëmb ak di ko yenu daa am lan du xel ma ndabal xam-xama dafa am fu mu yem moom xel moo tax ñu koy dimbalee xalima di bind ndax bañ a fàtte ak di jàng ci téere ndax nga mën a boole li nga xam ak lan li sa maam xamoon ak téere li muy jëriñ mooy nga mën a nga boole nga jàng li nga xam ak ka nga bokkul jamono wala bokkul place la mu lan la mu xam waaye téere yi dafa am dafa limité xalima itam lan limité fekk si limité xel fekk si lan mu ngoog loolu mooy li ñuy wax almahdudiyatu la nihaiya alla mutanahiya bokk almahdudiyatu lan mu ngoog loolu mooy lan ak limité gu yemut fenn ndekete moom doomu aadama moom lépp ma limité ah kon doomu aadama loolu nag limité googu am na lu mu jur mahdudiya la mutanahiya googu am na lan la mu jur mooy lan doomu aadama xamul dara ci lii xew ëllëg lii xew ëllëg nit xamu ci lan la xewoon dem nit xamatu ca dara xanaa lu néew ca la mu fekke woon te bind ko te mbind ma daa manqué fekk ga daa lan mu ngoog waaye li wóor mooy li ñu ëllëg xamatu ci dara la mu fekke woon lan démb xamatu ci dara te itam xanaa kon ginnaaw jamono ñett la li jublu si ak li teew ak lan li weesu li ñëw ëllëg lu ci nit xam li weesu démb lu ci nit xam dara lu ci def kon li teew li teew li teew itam xam nga loo ci xama li na ci barab bii nu ne li teew loo ci xam li na ci barab bii nu nekk lu dëgg li teew te nekkul ci barab bii na xam nañ ko day def li na ci barab bii nu nekk itam mu teew mu teew min xaysu barab teew min xaysu lan jamono ba tax nu xam ci dara xam nga du xam gu mat xam nga du lan du xam gu mat du xam gu wóorit xam nga doo xam nga lan mat ndegam kayit gii nu tiim mën noo xam ndax daa weex xam daa ñuul kon xam gi wóor na waaw kayit gi wax leen ma ñaata xarafa ci ne xamul ko xam gi motut xam gi lan wóor noonu la doomu aadama nekk di jaahil di réere di réere di réere ba faf réere boppam ba faf lan waaw dangaa dama dama dem ba yow dangaa réere sa bopp wax ma rek sa bopp wax ma sa bopp ñaata selil la ñaata xale ya xayya moo nekk ci yow ñaata dox ci deret mooy daw ci yow wax ma bi nga fi toogeeg léegi sa deret ñaata mètre la daw wala ñaata kilomètre wax ma ñaata noo nga génne nit xamul boppam nit lan wax ma sa nopp bii di dégg wax ma dégg gi nu muy def ba lan ba di ko def wax ma nu bët di def bay gis boo nee cheikh lu muy wax danaan un yene un lu mu ak su mu ko defee bi nga nee tell ngóor ci am pes lu mu def daa jooy dafa jooy lu ko tax a jooy jooy mooy lan ak jooy fu mu jóge ak lu mu am kontaan ak mbégte ak ree mooy lan ak yëg-yëg la yëg-yëg googu nu muy amee loolu lépp xamoo ci dara doomu aadama daa réere ba réere lan boppam réere googu ay firndeem dana gàññi ba tax sax ay bindkat di bind di nangu réer googu saa bu nuy fàttaliku réer ak doomu aadama rek sama xel dem ci Alexis Carrel bind ab téere di ca nangu ne doomu aadama daa réer ba faf loolu sax nangoom googu sax mu def ko muy onwaan lan téere ba téere baa ngi tudd al insanu zalika al majhul lii turu ab téere téere baa ngi fii ci kaggu gi al insanu lan waaw bu ngeen a fàttale moom ngeen ko al insanu zalika al majhul noonu la téere bi tudd lu muy firi nit kooku nga xam ne des koo réer Alexis Carrel dafa bëgg a wax ne ba léegi kenn xamagul nit dëgg-dëgg xam luy maanaa kenn xamagul nit buñ ne nit des koo réere des koo réere ism maf'ul la ëmb na ñetti yëf ak réer ak ki réer ak ku ñu réere ki ñu réere kana nit la ñu réere ku ko réere nit a réere nit réer gi di réeru kan erreur nit kon nit daa réer kon nit daa lan daa réer luy natija bi inna allaha alimun wal insanu jahil natija bi mooy lan mooy yàlla dafa xam nit dafa lan natija boobu dong la laaja wax wallahu yaalamu wa antum la taalamun ku mel ne Alexis Carrel gëmul yàlla balaa muy xam am natija boobu mbete mu jàng science jàng ay xeeti xam-xam yu bare bare bari wër lu bare bare bari jullit bi gëm yàlla gëm alquran moom bu jàngee suuratu nuur yàlla na ko wallahu yaalamu wa antum la taalamun mu teel koo xam bi maanaa masaafa bi nga xam ne moom la Alexis Carrel def ba war a xam ne nit daa lan daa réer masaafa boobu moom alxuraan sagal nanu ko teel na noo xam ne nit dafa lan dafa réer kon nag yàlla daa xam nit daa lan réer waaw léegi laaj bi nag kon ñoom ñaar ku ci war a tëral ay atte ah lan mooy nekk nataa ij yi sunu suñu fi bàyyee attey ki xam ñaar képp fi ne ki xam ak ki réer ki xam mooy yàlla ki réer mooy nit léegi nag nu bàyyi ci attey lan ki xam dem ci ku xamul nag ubbil ko buntu muy tërali atte nga dem di ko lan di tàtt ay atteem loolu bu nga ko defee lu ciy jóge ah alkande danoo war na sax danoo war na sax li nu dal ci ci ay alkande ci adduna bi looloo ko waral li dal waa adduna ci ay alkande ay jafeñ-jafeñ yu bari ak ay jaaxle ak ay musiba ki balaa li ko waral mooy ki xam sàkk adduna xam li koy jagal daaw tëral ay atte nu bañ koo topp dem ci ki xamut te mooy nit mu tëral ay atte yi ñu ci topp loolu rek indi alkan bu ko defee kon bu nu toppee atte ki xamul ki réer bàyyi ci atte yi lan ki xam la muy jur mooy dajjitu ci lëndami lan lëndami réer ak jaahiliya ak sori bu nuy sori leeru lan yàlla wax ginnaaw yàlla rek ka xam nit dafa lan réer waaw kon nag ki nekkul ci leeru xam-xamu yàlla ci lu mu ne ci lëndamuk réeru nit ki nekkul ci leeru xam-xamu yàlla ci lu mu ne ci lëndamuk lan réeru nit ndaxte leer daa amul ci fudul sa borom yàlla xam-xam daa nekkul ci fudul sa borom yàlla atte yu jub daa nekkul ci lan ah ci lu atte sa borom yàlla moo tax sama borom yàlla ne ku yàlla defalul ak leer doo mën a am leer wa man lam yajalillahu lahu nuuran fama lahu min nuur xanaa gis nañ ko rek kon illa ju njëkk ci mooy yàlla daa xam nit réer moo tax yàlla war a tër lan ay app illa ñaareel ji illa ñaareel ji walillahi mulku samawati wal ardi wa ila allahi almasir yàlla moo moom nguurug asamaan ak suuf te ci yàlla la ñëpp lan loolu mooy illa ñaareel ji ji tax yàlla wéete ak ki tëral ay atte yàlla wéete sañ-sañ ak droit ci tëral ay loi li tax sabas ñaareel bi mooy at tafarrudu bil mulki fi samawati wal ard loola mooy lan mooy yàlla dog ngay buur amul keneen koy buur yàlla moo bind asamaan ak suuf te mooy buurub asamaan ak suuf mooy buurub lan lillahi ñeel na yàlla mulku samawati nguuruk asamaan yi wal ard yi kon donc kuy buur ci suuf kuy buur ci afrique kuy buur ci asie kuy buur ci europe kuy buur ci inde ak amérique yàlla rek kay buur fii ak feneen ak fépp buur du mooy ka donn nguur ga ci bàyyi mbaa ci maam nguur dee su ko donn ndaxte li tax nguur dee su ko donn mooy ki ngay donn xanaa daa doon buur dee na bu doon buur du dee buur du su ko donn ci bàyyi mbaa ci maam te itam buur du mooy ka fexe ba def coup d'état fexe ba def lan jël palais bi jël nguur gi kooku du buur buur du mooy ki fexe ba jot ci état bi ci ay pexey politique wala wala mu fexe ba ñu bateel ko buur aw carte du ko fal du ñaan ko lan wate koo xam ne kii bala ngaa doon buur da ngay wër réew mi ne ah ba ngeen watee ma daa ba ngeen dégg ma réew mi foo ne nga digga fa lu ne nga wax te li ngay wax yow jamono yi nga koy wax xam nga ne mënoo ko xam nga ne yi ngay digge bu dee fukk wóor na la juróom yi mënoo ko amoo ko dencoo ko xamoo foo koy jële ji te teew yaa ngi koy digge waa réew mi nag ñoo lay xalaat dajalaatul ay lan ay carte nga door a fal kooku du buur kay woote ne ne ne moom mooy yilif mooy buur wala mu nga fii fii mooy fan aw daggit wu ndaw wu bokk ci ab ab ab iqlim ab continent nga ne nag yow yaay buuru fii ah wala yaay njiital fii fii ci sa fee ci sa wet nag moom ñu ne lan ah nga nanga ko bàyyee keneen koy woote nguur moom itam fu ne waa ji fa lan dafa wuute nguur nguur ñooñu kenn du ci buur buur kenn la du ñaar du ñett kooka daa moom mbooleem aqal yi mas ngaa dégg benn buur bu ne maa moom Afrique lépp ah mas ngaa dégg benn buur bu ne maa moom Europe lépp ah buur nag dëgg dëgg dëgg dëgg du moom Sénégal bàyyi lan ah bàyyi Mali ak Mauritanie wala mi moom Afrique di bàyyi lan Europe ak Asie buur day moom lépp xam ngeen koy buur buur mooy ki nga xam ne boo fabee suuf si lépp mboolem aqal yi continent yi di suuf si boo boolee mbooleem ak akaalim yi xoolal Afrique Asie Europe Amérique Inde af akaalim yépp boo ko boole àll yeeg géej yi ak dex yi ah ak mboolem li nekk ci biir loolu ci ay xeeti nit ak ay bàyyima ak ay ay ay jamaadaat yu amul bakkan lépp boo ko boolee xanaa mooy mooy mooy globe terrestre bi mooy courant ardien bi boo ko boolee loolu lépp muy bépp benn pepp pënd bu tuuti bu bokk ci ay milliards yi milliards yi nujum ak ay kawaakib ak ay ajraam yu bokk ci nguuram gi lépp benn bu ne ci milliards yi milliards yi kawaakib yooyu nekk di rulle ca fëlëg ba ko yàlla rulleloo di jaar ca yoon wa ko yàlla rëddal di sabbal yàlla boole di ko sant di jaar ci ay atteem di wommatul ay xawaaninam kookee da ngay buur ku le ne maay buur te moomul suuf si moomul jant bi moomul biddiw yi ku la ne maay buur kay buur mooy ki nga xam ne suuf si lépp boo boole mboolem continent yi ci lan suuf si ak mboolem réew yi ak mboolem nit ñi ak mboolem mala yeeg bàyyima yi ak mboolem garab yeeg asiya yi boo boole mboolem suuf si lépp muy benn biddiw bu gën a tuuti ci ay biddiwam yu mag yu bari lool yu mu am te biddiw yi di ay nangami milliards yoo xam ne benn biddiw bu ci ne yaa ngay daw ca ndigalam di jaar te yoon moom la jaarloo di ko sabbal di ko sant nangoo ay atteem lool te dootu jéem a gàntu dara kokka na yàlla ma ne teg koy buur yàlla moomu daa jot ci nguur gi te kenn doon na liwu ko ko doon ko ci bàyyi doon ko ci maam yàlla koy bàyyi ba muy doon yàlla daa jot ci nguur gi te ñaanul kenn carte wax leen ma kan ak kan daan fal wa fal yàlla ci carte wa teg yàlla ñaanul kenn carte yàlla kon ndekete nguuram gi doon ko ci bàyyi baa ci maam watewu ko ci carte yàlla ana nu mu doone buur yàlla ni mu doone buur nii la yàlla dafay nekkoon te dara nekku moom tepp mu ne mu toog ba mu soob ko mu sàkk ay mindaafon ah mu sàkk leen kon nag ñooñee kuy maa doon seen buur moom mi leen sàkk te itam ñii di wute nguur ci adduna bi ñii di woote lan nguur ci adduna bi ay jaamam dong lañu ay laam lañu ay jaamam dong lañu te moo leen di juddul ca waxtu ba mu ko neexee ku woote nguur ci kaw suuf yàlla la du ci waxtu mu ko lan neexe dugal la ci pale ca waxtu wa mu ko neexe bàyyi la fa ba mu neex ko mu rey la ci waxtu ba mu ko neexe bu